asalaamaaleykum chers internautes kaay si Hann TV amati naa mbégte kontaante saa su nekk di leen dara fii seen biir kër tey nag ñu ñëw ak yéen seen émission bii di Dawru Mara ñu naan kan le rôle de la femme maa leen ko diggoon goon te dañoo ne digga bor la moo waral tey ji nag dañ leen koy jox ba mu mat sëkk tey nag ma ñëw ak yéen rek 100 pour cent astuce kon ni ma leen koo waxee balaa maa xuus ci débat bi dinaa ci ànd ak ki nga xamante ne mooy sama charmante bii jàkkaarloo man ñu naan kan Binouche Mhm. parce que chauffeur yu jeeg ji yaa ngi gis ko mel ni Racky Diop ah. xam nga kooku yaakaar ne xam na lépp chaque jour mu muy muy décorer chaque jour di def ay feemam te feem day jeex. bu yàggee day jeex. day soof sax maa la ko wax xaritu baayam lu ëpp tuuru da ngay gis ñi nga xamante ñu naan la man chaque jour damay décorer. Mhm. wala man chaque deux jours damay décorer décor dafa neex ne sa jëkkër di gis lu beex ci yow da koy gën a neex du dëgg xaritu baay. Mhm. looloo tax ñooñu la ñuy woowee chauffeur ñu jéggi ñoom dañuy abuser en mais ñu ñuy wax. Euh, kon boobu bu leen abuser. waaw bu ñu abuser ah. Euh, mhm. décor yi neex na. lépp neex na pour bégal sa jëkkër. mais su ëppee rek xam nga mooy loolu dootul safati moo tax yooyu décor yooyu danga koy def ay surprise waaw de temps en temps nga xamante ne sa jëkkër chaque jour day bees ci moom tey soo bindee ay love you suba nga bind ko je t'aime mhm. ginnaaw suba chérie yaa ma neex ah. pourquoi du dëgg pourquoi pas nga ne ko oxebbuk eh, waaw waaw loolu daf may neex xaritu baayam mhm. waaw <laughs> ah, mais apprenti jéeg ñi tamit mhm. gis ki nga xamante ne moom xale la peut-être amul mag bu koy conseiller léegi dañuy gis day am faiblesse wala euh, kersawu dem di laaj te fii suñ la nee apprendre c'est pour apprendre kon nag da nga war di laaj mhm. chauffeur ñu jéeg ñu mel ni rek i jóob rek ñoom dinañ la teg ci yoon ku dëgg xaritu baayam mhm. moo tax apprenti jéeg ji saa su ne dañuy war di laaj te ñu bañ a rëy. Mm-hmm. parce que yaakaar naa ne ku téye sa bopp ba am jëkkër kooku am nga sañ-sañu dem laaj. parce que ñëpp xam nañ lu ci biir néegu sëy boo fa jongewul aussi dañ la fay naan ñu ko dem wuti sa morom mm-hmm. waaw. waaw nga xamante ne moo la fi bindu wax chaîne internet Kaay moo ñu mm-hmm. moo ne fasalu ahla zikr in sa su waxee loolu ko ça veut dire ñëpp xamuñu ñi def dégâts yu bëri nag ñàkk xam ne ne yaakaar ne xam nañ di def moo tax ñi def Mhm. de yaa waaye je pense que nit ki même loo xam-xam sax nga dem demande wàññiw la dara mhm. ñu wàññi gi tey laajte mhm. ba tey yéen a ngi seen émission bii di dawru mar ñu naan ko le rôle de la femme ñëw ak yéen ci thème 100 pour cent astuce li fiy binu jot a wax ñoo ko déggandoo xanaa rek euh, dañuy dem seetaan suñu beneen élément ñëwaat ak yéen ci seen euh, biir émission dawru mar ah may euh, tey ñu ñëw seet si la ñëpp xam la ci jaay cuuraay may ay astuce yu tàng yi nga xamante ne ñun xam nañ ci dara tey lan nga ñu tegal ci table bi. bagage bi jeeg original la bokk. bagage bi jeeg. li fi xëy neex na de. bii bokk encore mooy six ans. bii en même temps bagage jeeg original la bokk soxla jeeg yi. waaw bii nii mooy jamila bi. waaw bii bi la lépp si bagage jeeg yi la bokk. jël leen nee na caw sa xiir caw nag moom mbay mooy lan moom caw sa xiir léegi ah, maama liggéey nee na ko caw kii caw sa xiir waaw ñu bëgg tamit caw sa xiir moom yaakaar naa boo koy mu xam waaw ak lu mu wax la ko euh, mbay bu weesoo loolu de nuit yu tàng yi de yu cekkete yooyu gisaguma ko fi jëlal lii lii xeetu nuisette lii xeetu nuisette jëlal lii ak dóor bi nee na loolu moo tudd aj dóor tey de di ngeen fi gis lu nekk mais aussi di ngeen fi dégg lu nekk. yaa ko teree neex bàyyi nañu yaa ko teree neex nee na yaa ko teree neex neex na ba noppi. ay. boobu lu bandi di lool. nee na bii mooy lu bandi di lool. dëgg la kon jéggi nañu bandi nañu bandi. lu bandi di lool. bandi de nii lay ñëwee xanaa. yéen a ngi noonu. noot waaw euh, Mbaye. ginnaaw bu weesoo. ah mag naa ci yow dégg nga. taay xale jigéen ñi jël lu ñuy wax déguisement. Eh, eh. bàyyiwuñu dara. ñii policier. ñii ay militaire. maanaam daal xeetu baax baax yooyu. ñu naan déguisement da nga koy jaar. dama koy jaay waaw. am nga si. yooyu dama koy jaay mais yooyu du taxaw bi du taxaw yooyu du taxaw yooyu doo si léegi xale léegi daanaka yëpp comprendre léegi yëpp a yeewu. léegi loo si am du doy. Euh, Mbaye xeetu baax baax yi ngay jaay femme mariée rek ñoo koy jënd wala am na ay célibataire yu fi ñëw loolu célibataire waaw dafa mooy cuuraayu célibataire am na parce que am na aussi li ma sama yaay law bay jox yaay law bay jox cuuraay boo xam ne cuuraayu kii la cuuraayu célibataire la boobu mbaxal law boobu mélange boobu mélange célibataire la kon ay nuisé te kii ñoom seen ay femmes mariées ñoo koy jënd si waaw kon defe naa chers internautes euh, Kaay Seetaan TV lañ leen indiloon ci li nga xamante ne mooy seen émission bii di Dawru Mara ñu naan le rôle de la femme yaa am nañ yaakaar na neex na la indil leen 100 pour cent astuce comme li nga xamante ne moom la ko mbay waxee moom mi ngi nekk fee ca a euh, Pikine tali bu mag képp koo xamante ne bëgg parce que am na yenn yoo xamante nee du ko wax il faut nga ñëw privé la mm-hmm. nee na nga ñëw jël ko peepee ci suuf ndaxte lépp luy xeetu baax baax mi ngi ci butigam ba muy pañe muy décor day def déplacement day ñëw sa biir kër décorer la comme na nga ko bëggee kon defe naa tous le moyens sont bons kon mbokk sama mbokk jigéen ñi sama mbokk jéegi daw leen gaaw wu wutali mbay cuuraay képp koo xamante ne daal bëgg nga téye sa borom kay sa lafu sër gii mm-hmm. mu lay jox caabi oto di la jox caabi kër ñëw a seet si mbay cuuraay you still